aziz ndigal jëfee tapis rouge doon seen taalibe di liggéey ngir seen mbégte ci grand màggal Touba bi tapis rouge dafatina mëninam indi leen spécial promotion addiya ci ay salon Louis XIV à salon royal rafet te am qualité rouge yéen la fi nekkal xoolal yi salon ci 599 000 te si bii promo soo jëndee salon 7 places tapis rouge may la 4 coussins moquette ak table basse tapis rouge a sillonné le monde pour essayer de satisfaire sa clientèle avec sa nouvelle collection de meubles turcs des chambres à coucher de six battants à six cent cinquante mille ci ay design yu raffiné ak tapis rouge promo table à manger six places de provenance turque à cent quatre-vingt-dix-neuf mille tapis rouge am na ay salon cinq places ci trois cent cinquante mille waa lii moom neexul promotion spéciale Magalu Touba ak tapis rouge. والقلم وما يسترون mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kuréelu yaatal mbindum alxuraan bu c 3 taxawu jongante bi ñuy amal jëm ci mbindum alxuraan moo yëgal ñépp rawatina ndongo daara yi ne gannaaw diir bu yàgg bi ñu ajandi woon bépp activité jëm ci amal boobule concours di édition 2020 2021 mu ngi xamal candidat yi jotoon na déposé ne dooraat nañu liggéey bi C3S mi ngi xamle ne ngir wéyal liggéey boobule liste candidat yi jotoon na déposé daaw rek la jël njëkk bi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2021 ngir jël ci ñoom ñeent fukk yi war a jàll ci xaaj bu njëkk bi ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 bi ni'mati rabbika bi majnun salaamaaleykum suñu mbokki téléspectateur Rafah TV ñu leen di nuyu bu baax di leen ziar te di leen ñaanal jàmm di ziar Serigne Mountakha xalifa général des Mourides di ñaan suñu borom guddal aw fanam te wéral ay cëram noonu la ñu nuyoo rek xalifa généraux yi di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi ñuy seetaan di ñaanal bu baax way daw li yàlla yërëm leen di ñaanal itam ñi nga xam ne ñu ngi ci hôpital bi di ñaan suñu borom uh, wéral leen waaye ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw di ñaan suñu borom génn leen uh, di nuyu ñëpp tey nag émission la réalité lañ wax la fii ci Rafah TV ma ànd ceeg sama invité yu ñaawul yi uh, ku ci mel ni Serigne Abdou Lahad Ndiaye maa ngi lay nuyu di nuyu bu baax soxna Satou Ndiaye moom itam maa ngi koy bu baax di ko ziar émission la la nag tey ci wàllu sëy la dugg si sëy nag bu ñu ko waxee ponk yi fasantikoo lay doon ndax sëy yaakaar naa ne euh, jamono ji ñu tollu tembe bari na ay jafe-jafe loolu ci biir néegu sëy yi xam naa bala may sor rek euh, damay jox euh, soxna Satu Njaay mu nuyoo ko mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi koy seetaan. soxna Kumba ñoo ngi nuyu ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar nuyu suñu mbokki internet yi di nuyu ak ziar bu baax a baax suñu sëriñ si Ahmadou Rafaay Mbàkke Fàllilu di ko ziar bu baax a baax a baax di nuyu sëñ Abdoulaye mi nga xam ne mooy suñu invité tey bu baax a baax macha allah. ah jërëjëf soxna Satou ci nuyoo bu am solo boobu Serigne Abdou Lahad maa ngi lay nuyu bu baax euh, di la ziar yaa oustaz. waaw kay waaleykum salaam wa rahmatullah euh, soxna Kumbalo Gaydel ñu ngi lay fay nuyoo di la ziar itam bu baax a baax di ziar itam suñu doomi baay soxna Satou. di nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ñuy suivre ci à travers Rafah TV mbokki internet yi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di rafetlu itam dalal gi nga xam ne dalal ngeen ñu ko ci seen euh, émission bii di la réalité. di émission boo xam ne jàpp naa ne danañ fi indi ay solution yu bëree bëri rawatina ci problème yi nga xam ne mooy am ci société bi incha allah. Euh, jërëjëf Cheikh Abdou euh, ci euh, nuyoo bu solo boobu xam naa foofu laay jaar rek Cheikh Abdou Lahat bu ñu nee sëy ak jafe-jafe la ci aju mel ni sëy jamono ji tembe rek am na jafe yu bëree bëri yoo xamante ne nii am na ci sëy nan la def ba nga xam ne jafe-jafe yooyu du dana mën a xëy na sax du mën a ñàkk waaye dina mën a gëj ci diggante way dencan. waa kay jërëjëf soxna ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci thème bi nga xamante ni tànn nga ko mu bokk ci thème yi actualité yi nga xam ne daanaka du dañ mukk nag di doon thème actualité chaque fois war nañ ci waxtaan parce que dafa mel ne dañoo réere dëgg-dëgg euh, cosaanul sëy mooy lan sëy euh, ñaar maanaam daganuk ñaari euh, way jullit lañu doon ñoo xamante ni dañoo bëggante dem ci ay waajur ñu maye leen wala ay kilifa ñu ànd nag ngir fas yéene jaamu yàlla cosaanul sëy mooy jaamu yàlla la Euh, mën naa ne sëy sax jafe-jafe mën na cee ñàkk ci kaw bu fekkente ni ñi war a sëy boole nañu leen problème bi nag yenn saa yi dañuy boole ñoo xamante ni xay na. xam naa foofu dinañ ci ñëw sax ci kanam. pour ñoo ànd ok su ko defee bokk na ci li ko waral dëgg-dëgg nag mooy euh, ñàkk juboo gi ak ñàkk xajoo gi rawatina ki nga xamante ni mooy ku góor gi mu war a sëgg yu bëree bari parce que sëy bu fekkente ni da bëgg détail bu nekk nga bëgg caa taxaw. mën naa waral daanaka lu bëree bëri ci ñàkk a déggoo goo xam ne dana am sa diggante ak ki nga xam ne moom la la yàlla booleeg su ko defee ku jigéen ki itam war naa gën di dawal compréhensif ci diggam ak góor gi rawatina nag ci yenn yenn yi nga xam ne ay rëcc rëcc la ñu war ci gën a di déggoo di waxtaan sëy kon li ko lal mooy waxtaan li ko lal mooy déggoo li ko lal itam mooy laayante biir waaye yenente jàmm jiital nag jaamu yàlla parce que jaamu yàlla la lañ ca war a jiital mooy jaamu yàlla jaamu yàlla nag lu ñu war a rafetal lay doon ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ne yàlla suñu borom dafa bëgg nit ki lépp lu muy jëf mu rafetal ko kon ba ci sëy bi góor gi war naa am yéene dugg ci ngir jaamoo ci jaamoo ko yàlla jigéen gi itam war naa am yéene dugg ci ngir jaamoo ko yàlla soxna Kumba Lo danaa la nettali loo xamante ni dafa am waaju mës a ñëw ci sëriñ bu mag bi radiallahu anhu ne ko damaa fas yéene xaadim rasul damaa fas yéene mbàkke daal euh, jéem a euh, abbewu daal ni ñuy wax abbewu bañ a bañatee di denc soxna féete ak sama borom rek Sëñ Tuubaa ne ko boo ko defee gën ñëpp mu dem ab diir nekk ca nekk ca ba mu yàgg mu xam ne ne loolu mu tewee mu ñëw ne ko Mbàkke daal dama bëgg a fas yéene daal euh, denc soxna daal sëñ ma ngi ne boo ko defee yem ak ñëpp mu dem a dem ba mu yàgg jafe yi nga xam ne mooy faral la am ci sëy di gaar dem mu dox digganteem ak dem bay jaamu yàlla sax xaw jafe ci moom mu ne Mbàkke de damaa fas yéene jéem caa génnaat daal fas yéene féete moom féete woon Sëñ Tuubaa ne ko boo ko defee yées ñëpp kon sëy dafa ànd ak ay jafe-jafe waaye jafe-jafe yooyu nag fa ñuy xàmmee dëgg-dëgg góor bu dee góor gi la mooy mu taxaw affronté ko mu taxaw jafe-jafe bu ci ñëw mu xam ne moom mooy góor responsabilité bi moom lañ ko jox moom moo war a wane nag dëgg dëgg nag euh, responsable jëf jëfi responsable xam nga ab sëy dafa doon loo xamante ne responsabilité bu rëy rëy solo jëf-jëf yi responsable mu mel ni kon xam naa dañuy soxna sata euh, sëñ bi laxat dafa wax lu am solo mu ne dañuy waxtaan di diisoo soxna sata mel ni communication tamit dafa manqué ci wàllu sëy yi ndax euh, sëy moom yaakaar naa ni euh, waxtaan ci la diisoo di yëkkateendoo di doorandoo ndax damay dégg ñu naan boo bëggee sëy da ngay def sa borom kër sa meilleur xarit sa borom kër def la noonu ndax tamit loolu bu ñu xoolee jamono yàqu-yàqam ndax soxna satu nag nga ko gisee waaw soxna Kumba man damaa dégg euh, sëñ Abdoulaye ne sëy jaamu yàlla la. Mhm. waaye est-ce que jamono ji ñu toll sëñ Abdoulaye sëy bi ñu ngi ciy duggee ci jaamu yàlla. Mhm. man loolu lay lay njëkk a laaj ba xam. Mhm. ñu ngi ciy duggee ci jaamu yàlla. ak buñ duggee ba ci biir est-ce que jaamu yàlla moom lañ cay nekkee ndax yaakaar naa jamono ji ñu toll ni day mel ni sëy ndax jamono ji sëy tendance lañ ko jàppee. kii kii wut soxna. da koy wut ci tendance. Mhm. kii sama xarit la takk na soxna man toll naa ci takk soxna damaa war a takk soxna. bu dee jigéen ñi ñu ne kii sama xarit la am na mhm. borom kër kon man damaa war a am borom kër. Mhm. day mel ni euroménage gi daal. moo tax ba ñuy ñuy ñuy ñuy dugg ci sëy yi léegi ak esthétique yi. ak ak ak tasaare bi ñu koy tasaare si réseau sociaux yi. ñaareel ba mooy communication bi soxna Kumba wax. est-ce que communication bi mat na léegi. est-ce que ni mu waree ñoo ngi koy def. ndax seetlu nañ ni borom kër yi ak soxna yi daanaka li ñuy tase ci kër gi léegi bareetul mhm. guddi ba guddi lañ fiy tase mhm. wala guddi boobu kii moo ngi fii kee moo ngi fee mhm. est-ce que loolu tamit sëñ Abdoulaye amul beneen jàngat boo xamante ne bii war nañ ko cee mën a jàngat ci sëy ginnaaw sëy jaamu yàlla la sat lu koy waral wàcc na ku nekk naan sa morom damaa sonn li ñu war a waxtaan war a lijjanti xale yi day des xale yi tamit dañuy manqué tamit éducation de base dañ koy manqué parce que seen parents yi dañoo war a toog ak ñoom di waxtaan ak ñoom di leen yedd mais déedéet ñoom ñu ngi seen i téléphone mag ñu ngi ci téléphone la xam ñoo yàq jamono. <laughs> technologie bi moom dugg biir sëy bi ne dafa am partie bu mag bu am doole boo xam ne euh, communication bi li ko waxee léegi dafa doon lu munta ñàkk parce que communication dafa dafa doon facteur de maanaam lépp loo xamante ni nar nañ mu jëm ca kanam nar nañ mu rafet faaw communication am. xam naa question soxna Satou bu am. boobu ci laa jëm nii sax mooy. sëy dafa mujj doon tendance mujj doon mode mujj doon phénomène loo xam ne dafa xew ñëpp a ko xewal dañ ko war a xewal ba ci ki nga xamante ni sax ndeysaan euh, duggagu ci ba ci bëgg a dugg lan lan moo waral mu bëgg caa dugg estati yi maanaam jour mariage am mu dem jënd robe de mariage am def defar kanamam defar ba mu baax ngir ñu mën ko estati mu dugg bokk ci ñëpp. fekk nag euh, ma ngay ma ngay baaj dund lu mel. alors que nag préparé wul nag ëllëg lan moo koy xaar parce que sëy dañuy wax ne soxna Satou. daanaka ñetti weer yu njëkk yi rek mooy bànneex la ca des lépp. mag ñu njëkk ñi rek dañu naan wax 6 mois mais léegi dafa mel ni matul 6 fa parce que léegi euh, problème bi mooy avant ngay dugg ci waa ji daanaka xam nga léppam. moom itam avant muy dugg ci yow presque xam na sa lépp bu njëkk ba ñuy wax 6 mois la dangay gis koo xam ne dafay yaroo ca àll ba ñëw ndakaaru wala mu di yaroo fenn bokkuñ ay dëkk ñoo ko demal sa kër bàjjen diw sàngam mu dem fa gis fa soxna takk ko kooku diiraan muy nekk ak moom bay minanteeg moom peut-être mu am 3 mois 6 mois. sëñ Abdoulaye euh, doguma la. Mhm. ci loolu nga wax demal sa kër bàjjen diw. Mhm. ak demal sa kër. Euh, nijaay nijaay diw. Mhm. ce que loolu tamit indiwul problème yi nga xam ne moo am ci sëy léegi ndaxte demal sa kër bàjjen ak demal sa kër nijaay diw bi mu daan am. raaroon na loolu pour ñu gis problème yi xew léegi. léegi sëy yi tribunal lañ koy tasee. waaw tribunal lañ koy takkee. tribunal lañ koy tasee wala mën nañoo gisante bëggante. nekk ci jàmm mais fu histoire amee ñu dem tribunal nga génn ci mbedd mi mhm. tase ak sa moroom ngeen bëggante mhm. sa yaay xamu ko sa papa xamu ko mhm. ñu wax nga ne bëgg naa ko moom laa bëgg may leen ma ko bu ngeen ma may moom laa bëgg bu ngeen ma koy moom laa bëgg <laughs> boo xam ne lu lu bëri la ci dëkk bi est-ce que loolu tamit ah, jarul taxaw seetlu ba xam jarul ñu demaat ci sa bàjjëndi ak sa nijaay yi donte nag ne nañ sa yu mbokk bu tasee mbokk ga tas waaye nag day mel ni àdduna toll na foo xam jotaat waa est-ce que itam man gis naa ne euh, delluwaat foofu sax baax na lool mais jamono ji léegi xale yi fi ñu toll ñooy bëggal seen bopp ñooy gisal seen bopp parce que say métti ni métti goo xam ne en général xale bi nga xam ne da nga ko dugal bu ëllëgee lu mu gis rek danaa ne sama papa moom ci dugal wala sama nijaay ma ci dugal waaye bu démb doon tey bu ngeen xamoon ni waa du mu mais nag ba nga xamante ci internet bi moom lu ñëw rek da nga koy affronter da nga koy parce que bu fekkee yaa ci dugal sa bopp alors que au nga jéem a sax góorgóorlu am au moins mais nag au fur et à mesure ba mujj fa muy mujj mooy day tas parce que la ko laal du dëgg parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am lu mu wax lu am solo danañ takk jigéen ngir ñeenti mbir ba ca njëkk danañ ko takk ngir dafa rafet loolu mooy li xew ci jamono. dëgg la moo xew parce que waaw moo tax jigéen ñi suñu seen mbokki soxna yi daanaka seen esthétique yëpp dañuy rafetu mel lañ lañ war a mel. Euh, maquillé wu lipelese wu euh, make up. lu ne duñ ko bàyyi. mais est-ce que est-ce sëy bi est-ce que sëy bi dëgg dëgg dëgg dëgg ci taaru ku jigéen ki la war a nekk est-ce que taar bi mooy sëy bi. wala jikko ji mooy sëy ñoo xam ne dañoo xamul na la ñuy tànnee maanaam taar lañuy ñuy tànn ci nit taar la ñuy tànn ci jigéen ji xoolal xale bi dafa jekk xale bi non ko kii comme indo kii comme naam déedéet jikko yow intéressé wu la waaw da nga daan yendu ji pour xool jikko yi jar na sax nga def enquête de morale woo sa diw sàngam Mourtala man ko dafa am xale bu muy bëgg foofu seen koñ bi bëgg naa nga doxal ma ci ba xam ban ban façon xale la Mourtala daal di dem dox ay jéego dem feneen feneen daa ah, kooku de boo ko amee am soxna mais léegi da ngay def mooy ah sa waay xool sama photo sama sama ndaw si kii de la yi laay génn ak bi la kii de ah, yu kii baax na kii moom vraiment kii moom neex naa présenté waaw loolu ngay njëkk a neex naa présenté alors que yow da ngaa bëgg takk jabar pour présenté ko rek kon loolu tax yéen tamit dañ takk jigéen ci waaw loolu rek euh, duñ takk ci jikko yéen yéen baa ngi ñëw xoolal nee na danañ takk jigéen ci ñeenti mbir ngir ab taaram li jamaaliha mu ëpp loolu nag échec lay lay mujj jur wala hasabiha danañ takk jigéen parce que dafa am ab dayo parce que dafa am situation jigéen joo xam ne boo ko takkee yow dépense wàcc na la jigéen joo xam ne boo ko takkee kaay jëndal ma euh, tonton wala nijaay wala ma chérie ñu baal ma ci gàddu gi des dañ koy wax parce que yëpp ay <laughs> kii la waaw maanaam dalay wàcc yu bëree bëri euh, am na jigéen ñoo xam ne dañ leen di takk lu tax parce que ñoom doomi diw sàngam lañ ah ñii kat ku leen takk euh, dem ci diw sàngam dana la yomb ku leen takk visa dana la yomb ku leen takk billet marque dana la yomb mooy intérêt bi quatrième ba ca ñoom wax nañ lañ war a takk mooy faxtar bi zaati diin yeneen bi nee na nag tànnal borom diine li xasabiha li jamaaliha wali maaliha waaye nag yow booy tànn faxtar bi zaati diin taribat ya daaka dal nga ci yeneen bi mooy njëkk wax dal nga ci mhm. nee na boo tànnee borom jikko ji rafet dal nga ci ndax borom jikko ji rafet bu àndeek taar bénéfice la borom jikko ji rafet bu àndee judd bu rafet bénéfice la bu àndee itam am xaalis bénéfice la te moo nekk jigéen ñi dañuy fàttali toujours ne jigéen bu am xaalis daanaka bu ñu xoolee ci saydatu Xadija moom bi ko yonent bi sallallahu alayhi di bëgg a takk avant ma koy takk rek moo nekkoon ki gënoon a riche ci waa Màkka bi ko yonent bi takkee mu jël ay comptam yépp vidé ko ci compte yonent bi sallallahu mujj nekk ki gën a ñàkk kon loolu exemplaire la ci jigéen ju am waaye waaye jamono ji léegi suñ suñ Abdoulaye uh-huh. jigéen bu ëppalee borom këram moom mooy mujjee nekk borom kër bi waaw da ko koy góor gi mooy nekk soxna si ñu baal ma ci ci kàddu yi <laughs> na te kooku day day wu chaque jour ci maa la ëppale am am te doole yemul waaw ak yi jigéenam nag bu fekkee ànd ak jikko ji rafet bu fekkee ànd ak jikko ji rafet mooy da nga rek ci alalam dañuy wax ne ku yokk sa dépense euh, wàññi say wax maanaam nit jigéen am na ci jigéenam ñoo xam ne saa bu ñu doolee dépense yow danañ la am fu ñu la téye foo xam ne doo fa mën a xam ne jigéen xelam matut ñëpp a ci am euh, ñuy mottali ndax dañu jigéen ni mu leen di sëggee rek noonu la xel mi sëggee exception am na de <laughs> exception na am na jigéen ñoo xam ne ñoo gën a yeewu foofu góor ñi góor ma loolu jigéen lu mu yeewu yeewu rek góor mën na koo may xel waaw mais itam jigéen day may xel góor ñi xam nga dañoo wax góor gu góor gu réussir gune koo gis wara ak kulli rajulin Euh, azizin imraatun aziza góor gu góor gu réussir mukk goo gis ci àddina am na jigéen ju réussir jigéen ju baax ju nekk ci wetam parce que góor gu baax souvent bu amee jigéen ju baax jigéen ju baax daf koy dimbale wa zawjatan saalihatan tuaynu ala tuqa wal birri yaa muaynu Sëñ Tuubaa bi muy ñaan loolu la ñaan soxna soo xamante ni dafay nekk di dimbale boroom këram kon jigéen baax gi da ci am solo xel mi itam dañ naan matut mais day mat parce que Khadija moo nekkoon bras droit Yonent bi sallallahu bi yént bi demee ca xuntima mu ñëwee xadija rek moo ko moo moo ko dalal ne ko yow lu que da ngay jokk mbokk parce que da ngaa baax da ngaa def nii da ngaa def laa daan ne ko yow la dal du jinne du baax la kooku jigéen ju baax la exemplaire doon lim ñu bëree bëri soxna maam Anta Ndiaye kenn du moom moom itam baax la parce que bu fekkoonte ni li newoon ci moom ci ay qualité bu nekkutoon ci moom du yëg ne sëñ Mor mii am na lu mu soxla loo xam ne man mënuma ko damay dem ca biti ma dem wuti ko loolu tax mu dem wuti soxna jaara ñëw indi ko kon loolu modèle la ci ci muy lu jafe-jafe nag ci wàllu sëy ndax euh, jamono ji moom ko jege dañ koy jël rek yanu ko mm. te moom du dara bokk wërsëg la xam naa di jaajëfalaat suñu mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan waa euh, nga xam ne rek ñu ngi siifur Rafah TV ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax Abdoulahat Ndiaye soxna am satu euh, soxna satu mu mel ni rek sëriñ Abdoulahat ni mu ko waxee macha allah mu mel ni ci jikko yi nag lu jar a xool la te bañ a xool ci taar bi ndax technologie yi ku ne xam na ni ci la ñuy Euh, te euh, buñ nee takk nañ ko tey sëy bi 6 mois lay am gën ngaa gudd 1 an. commencé 1 an sëy bi problème bi di commencé. <laughs> yow la nga njëkk la nga jaaxal mooy ndax man est-ce que jaawale boobu que kii mooy ka ma doon gis. parce que nam doon mel waaw est-ce que moom la woon sax d'abord. ñuy laaj naan ba xam sëy bi mooy sëy bi ñu takkoon. waaw keroog te fekk na booba la waraloon takk ga. ak la waraloon tas ga daanaka benn lay doon. bi ñuy takkante dañoo waxtaanuñu woon. dëgg ko lal. du ko lal xam nga dëgg moom lépp lu mu lal lu nekk lii naan loo bëgg mujj ga rafet na njël benn ga dig dëgg. Mhm. waaye damay dikkaat euh, sëñ Abdoulaye. Mhm. ci liñ doon wax sànq. Mhm. ci jikko ju rafet. biñ doon wax ñoom maam biñ doon wax demal kër nijaay diw ak kër baay diw. booba dafa fekkoon da ngay gis foofa koo xam ne jikkoom neex na la. Mm-hmm. nga ne ko demal sa doomu tànt diw wala sa doomu umpaañ diw boo demee di nga gis ci moom jikko bi waaye léegi dañuy dem takk ji mm-hmm. indi la yow bu ñu la takkali jee indil la donte liñ la takkal neex liñ la takkal indil la ko neexu la mm-hmm. est-ce que tamit yow mi nga xam ne yaa boole ñëpp uuf leen ci biir kër gi nga sëy nag sëñ Abdoulaye yaakaar naa yemu ci ñaari way dencante yi ñoo gën a ndaw ci diggante sëy bi ñi nga xam ne ñoom lay bokk nekkal ci kër gi mhm. famille bi mhm. waajur wu jigéen moo ngi ci waajur bu góor moo ngi ci rakk yu góor yi rakk yu jigéen yi liñ naan sëyu Sénégal jarbaat yi sax eh, ci sëy yi lañ bokk est-ce que yaakaaroo ne tamit am na sëy yoo xam ne war nañoo mën a xoolaat nan lañ koy téewee ndax mhm. donte ki ñëw yow neexu la mais mën nga koo téye ba jëmmi jamono nga wuti keneen indil ko ndax dañ naan jigéen soppi ko yomb na ndax boo indee moroomam mu mel hmm. ne neen mën naa xool ci sax soxna Satu dogguma la maanaam jigéen euh, dañuy wax souvent ne gis ci moom maanaam li la neex lépp mënut a jafe na lool. parce que sa borom kër it euh, góor ñëpp noonu. góor ñi tamit comme noonu rek. waaw noonu lay amee ci góor ñi léegi nag li la naqari ci ci ci ci soxna si muy ab aawa. Euh, peut-être ni nga waxee mën nga ko wutal solution dem keneen ko xooli keneen koo xamante ni la la métti ci kii mën nga ko wutal wutal wujj xamante ni mooy ñëw la la métti woon ci kii parce que dafa am koo xamante ni dafay ñëw pour yow rek am jigéen joo xam ne bu ñëwee day ñëw pour waa koñ bi am keneen koo xam ne day ñëw pour waa say mbokk mm-hmm. léegi nag bu fekkee ne da ngaa am soxna soo xamante ni yàlla dafa laa nattoo moom yow ak entre moi et toi la man ak yow rek keneen bokkul da ngay da ngay dem nag nga wuti keneen koo xamante ni jooju day am keneen koo xam ne da koy indi rek pour famille bi li dox sa diggante ak famille bi parce que loolu dafa am solo parce que nit ki bu fekkente ne yoroo jikkoy tubaab wax dëgg yàlla sëy bi famille bi ñëpp lay interpellé ñëpp ci yora ba la bokk da wax lu am solo soxna Satu muy ñu delloo si waat la mag ña daan def dama lay fàttali na mag ña objectif bañ amoon ci sëy dafa bokk ak ñun suñu objectif objectif bu jaamu yàlla moo taxoon ñuy xool jànq bu rafet jikko ñu tànnal ko ne ko ah du la xat dañ daan def nañ boo demee fekk ko fa muy def nangam muy fireeku wala mu rooti xam tamit am na yu bari daan seetlu ci jigéen yoo xam ne ay gaaf la yoo xamante ne nii dañ daan wax boo demee fekk ko def nangam kat waññeekul bul wax dara boo demee nag fekk ko muy def nangam xamal ne kooku ma soxna loolu amatul loolu amatul xam nga nag yooyu mag ñi moom. du mën a am ndax ki nga tasee ci mbedd mi muy dox di dem. ngay dox di dem. Mhm. première daje bi ci mbedd ngeen tase da ngay dox di dem muy dox di dem. mënu xam la nekk ci moom. moom mhm. tamit mënu xam la nekk ci yow. ñaari ñaari mbedd rek ngeen tase. Mhm. kenn ku ci nekk ngeen doxante ni ngeen war a doxante am na beneen question boo xam ne sëñ Abdoulaye bëgg naa ñu waxtaan ci bu baax soxna Kumba. waaw pare xam nga lu ma bëgg mu tontu tamit ci affaire gaaf yooyu bu ñëwee ci biir kër gi fekk la ngay def nangam xamal ni sa soxna la waaye boo demee fekk muy def nangamit kooku am na gaaf ndax loolu tamit mënuñu koo jëlaat indi ko si jamonoy tey waaw loolu dana xaw a jafe loolu ndax mag ñi xam ne ñoo ko doon jàngale daanaka boo dee xool kër goo dem souvent mag ñi xanaa bëreetuñu fa léegi mag ñi daanaka ñu ngi wàññeeku bu baax a baax te lañ fi bàyyi woon ci am jàngale daanaka lu ci dañ koo bàyyi gannaaw dund luñ ko daal waaw loolu loolu tax daanaka daanaka lu bëree bëri daanaka utiliser tuñ ko ci suñ biir ay sëy daanaka sëy yi léegi sëyu tubaab daal la sëy boo xam ne sëy buñ modernisé la tey ci jafe-jafe yi nag eh, instant bi moom la ëpp mu njëkk waaw léegi xam nga mën nga gis koo xamante ne sax mag ñi dañu daan xool jigéen rek xam na ni kii kuy am doom loolu ku dul am doom mm-hmm. dañu daan xool jigéen xam na ni kii ko takk am soxna su baax wala déedéet mais ñun xamuñ ci lool ñun suñ jamono ji li ñuy xool mooy kii kat ku rafet la ku neex a présenté la kii kat maanaam ku jekk la ku mën àdduna la kii kat ku jekk ku jekk jamonoom la. loolu la ñuy xool léegi nag waaw kay. comme so talaas soxna sa léegi nag la problème mooy dañoo war a delluwaat nag au moins ba pas ñu jël léppi li gannaaw li woon ci gannaaw mais nag ñu am luñ ca jël lu baax mooy fexe ba ñu jiital jaamu yàlla ci sëy bi jiital ak mbokkoo li ngay demee di wuti ci mbokk jàmbur terewuñ nag dem di wuti ab jàmbur mm-hmm. parce que jàmbur itam bu baaxee baax na mm-hmm. mais ci mbokk gi. bu fi amee moo gën a ti parce que booba sëy bi danañ bëri dana bëri lu ñuy rus loo xam ne dañu ah man kat jomb naa def nangam parce que kii sama sama sama sama doomu eh, nijaay wala kii sama doomu bàjjan la am na loo xamante ne du ma moom loolu tax sëy bi lépp lu ci am ci problème ci biir sama famille lañ ko réglé mais nag bu xam ne ana yow ana man la ci mbedd bi ngeen su boobaa problème bu ci am daanaka justice la ñuy dem ci yoon yoon moom xamut kii kii la kii loolu lañ bëggoon a ñëw sëñ Abdou laat ñu seetlu ne dañ naan doom sëy bu ci doom amee. Mhm. day gën a dëgëra sëy ba. ñu seetlu ne am na benn xew-xew bu fi xew bu yàggul. Mhm. dara mhm. ñuy masawu yaay ji nga xam ne moom la dal ci kawam. bu baax a baax nañ kenn ku ci nekk yaay nga jigéen ju ne yaay nga. ñu seetlu ne problème moo tax kooku faat ay doomam faat boppam. est-ce que egguñu ci jamono joo xam ne bu fekkee nit ki dangaa nekk ak moom di sëy ak moom problème am na mënu leen a toog en famille ngeen lijjanti ko. est jarut kenn ku ci nekk dem xale yi ñu teg leen di leen toppatoo ba fekk ñu nekk ay mag waaye est-ce que jaroon na loolu. Mm-hmm. problème mu sëy est que jaroon na loolu ak jigéen tamit est-ce que jar na. ngay lor sa bopp di lor say njaboot. ak doom ni mu neexee. waaw moom xam naa li ñuy li ñaanal ki aji dem ji yàlla doole ko yërmande bu baax a baax parce que euh, ñi ko xam nee nañu seede nañ ci moom daal kàddu yoo xam ne wax dëgg yàlla euh, loolu lii am ni bett na lañ ci moom mais nag euh, nit moom dafa néexut a comprendre nit dafa lëndëm. te tam jafe-jafe euh, yaakaar naa ne jafe-jafe àdduna wur sa jaral kenn ba muy faat bakkan rawatina nag bakkan bi ko gën a jege. Mhm. muy ak njabootam man jàpp ma ne dëgg-dëgg ba mu koy def ànd na ak sago parce que loolu gis naa ne daal euh, jullit wala nit sax ku ànd ak sago jur doom euh, bëccëgum ndare kàmb nga yor paaka wala nga yor loo mën a def pour pour mën koo faagaagal loolu dafay répété wu ñun bu jam bu yàggul rek fii ci Touba. Mhm. am nañ fi événement bu mel noonu xew-xew bu mel noonu. mi ngi bëgg a bëri nag. loolu nag jaadu nañ ñu taxawaat. doomam rek la def kii nag moom dafa jël faagaagal boppam faagaagal ay. waaw waaw loolu tam loolu tam mooy mooy problème parce que bu ko yemaloon ci doom yi. lettre lettre bi mu bind it boo xoolee ci sukkandiku ci lépp da ngay lépp rek ci mbiru sëy bi. la. waaw problème mu bi moo tax li nga wax ni dafa am solo. maanaam suñu borom dafa wax ne ci alxuraan bu ñëwee ba am jafe-jafe maanaam jigéen da nga yor ci njekk wala nga bàyyi ko ci njekk su su jafe-jafe amee nag nañ woo mag ñi nañ woo ñañu ko joxoon moom ku jigéen ki am na nay kilifa ku góor gi tam am nañ kilifa ku nekk woo say kilifa ñu toog waxtaane ko bu fekkee waxtaan wi jurul solution avant waxtaan wi sax yow sa bopp yow góor gi am nga solution alxuraan nee la na nga waar jigéen ji bu la amee lu naqari ci moom woo ko nga waar ko tong bi mooy troisième position bi euh, waar ko mooy deuxième bi kon du moins bu waar woo jàllut waar nag ku waaroo moom la waare mais bu fekkente ni <laughs> <laughs> da ngaa doon koo xam ne jàngul <laughs> jàngoo xamoo waaw ba noppi waar jigéen di waare loolu tam waaw waare doom boobaa da ngay dem wooyi ab oustaz wala ku jàng mu ñëw ci kër gi nga ne ko ah man kat dama bëgg ñu waxtaan li ma yàlla sant ngir ma war koo def te mënuloo ko sama bopp yow laa bëgg nga wax ma lan mooy àq jigéen ak boroom këram ci biir. mel ni tamit suñu mbokku jigéen ñi eh, am na ñoo xam dañu fi xaar dañu la fa xaar dañ naan kii lu muy def nii ak lu muy waaraateeg waa kii lu mu xewleeg ah bu la toongee nga xam ne mooy troisième euh, position bi nga xam ne moom nga wax bu la bu la toongee nga ne kii kat bëggatuma naa dem seeti leneen mhm. mu mel ni daal euh, lu naqaree lijjanti la ci suñu toll waaye jamono ji mhm. waaye lépp rek base bi mooy waxtaan il faut mhm. compréhensive am muy déggante parce que tam loolu dafa baax lool ci ab sëy muy ku nekk góor gi na dégg jigéen ji jigéen ji dégg góor gi ñuy déggoo ci lu mën a doon waxtaan nag dañ ko war a jiital waxtaan muy jiitu ci lu mën a doon waxtaan bu amul rek réeroo day daal am li olof di wax ne waxtaan amul ñàkk maanaam réeroo amut ñàkk waxtaan rek am rawatina ab sëy nag moom maanaam kumpa bu ci amee rek wala ak bedd konte kii jëm nii kay jëm ne rawatina bu ñu amee njaboot day a beddi konte boobu nga wax noonu ci lañ bëgg ngi ñëwoon ñu ci tuuti hmm. est-ce que jigéen tamit war na sëy ak nit ki ba pare mu soxla la ci laal hmm. nga di bañ ngay bañ wala dara. maanaam est jigéen tamit war naa def loolu sa boroom kër di la sàkku ci kaw lal ngay bañ. loolu moom rëbbum yàlla da cee aju sax jigéen joo xam ne amul ba ngànt amul ngànt boroom këram woo ko kooku yonent bi sallallahu alayhi wa nee na day fanaanoo rëbbum yàlla ci kawam loolu loolu warut ko góor ki warut ko jigéen ji bu fekkee dafa am ngànt moom ngànt moom xam nañ ko mais nag bu fekkee ngànt amul moom loolu moom jaaduwut wala di chantage léegi gis nañ soxna yoo xamante ne dañuy chantage seen i boroom kër ah, soo ma defalul nangam du ma la jox sama bopp sama ndayale ga sama jesneer bi sama nangam nangam loolu itam wax dëgg yàlla jigéen ñi koy def loolu moo indi problème yu bëri jaajëfalaat tamit ba rek suñu yi nga xam ne ñu ngi seetaan Rafah TV tey nag la réalité la ñu wax la réalité nag yaakaar naa ni bu ñu ko waxee ku ci nekk rek dañ ci sa bopp tey dañoo dugg rek ci temu sëy bi waaye yeneen ak yeneen day ñëwaat actualité lay doon fii ci Rafah TV kon ba tey rek sëñ Abdou Lahad euh, xam naa rek ñu commentaire foofu ndax mbirum sëy moom buñ ci ne waxtaan yaakaar naa ne euh, émission bi dana jeex euh, te du jeex ndax moo nekk ci jamono ji dafa xew yëngu-yëngu yeeg jafe-jafe dañ fay jàll na lu am solo ci biir sëy boo xamante ni njaboot xas na faa am mm-hmm. loolu yaakaar naa lu mu métti métti war nañoo jéem a bàyyi xel njaboot gi parce que njaboot gi ëllëg ana sa yaay wala ana sa papa nga ne sama yaay ak sama papa dañoo divorcé divorcé sax moom baax na mais nag muy mujj mooy li ñu war a mooy li yonent bi sallallahu alayhi wax ne mooy li gën a maanaam li dagaan li yàlla gën a bañ abgadul xalaali inda allahi attalaaxu mooy fase mais nag bu ñu demee ba solution amatul bu dul fase parce que bu fekkante ni wóor na la boo continuer nekk ak jigéen ji da nga ko lor wa ilaa moom dana ma lor ci sama diine wala sama pas-pas su boobaa la gën mooy nga woo aw tasrixun bi ixsaanin maanaam wool ña la ko joxoon ne la ah man kat neexatul ba neex waaye Euh, gëm naa ne mënatuñoo ànd waaw ci njekk ak teraanga mooy tax bu ëllëgee bu ngeen dajee euh, ku nekk mën naa continuer mën ngeen continuer sax doxal seen seen relation relation bi leen boole parce que am ngeen ay famille am ngeen waaye relation boobu noonu mhm. day fekk euh, tàggalikoon ba rafet waaw kay da léegi divorce yi tribunal lañ seetlu ne moo ëpp gis nga ay kaawu divorce boo demee tribunal mhm. kaawu divorce yi moo fa ëpp waaw loolu xam nga moo waral loolu dafa dafa yomb waaw dafa yomb loolu dafa yomb loolu xam nga xam nga sëy ñun fii euh, société bi ñu dund dañu xaw a néewal lool rawatina tribunal daanaka da ngay gis ku def mariage am mais bulletin de mariage sax du ko am certificat de mariage daanaka bëri na boo wàccoon fii micro trottoir def daanaka fukki nit yoo gis mën naa ne kenn nga ciy gis ku am certificat de mariage muy wane ne kii marié loolu dafa am solo lool parce que loolu moo lay dimbale bu ëllëgee bu divorce amee nga mën a dem tribunal déclaré ko nekk fase naa parce que yow mën ngaa seq sàngam nii ñu dem ba Euh, mariage maanaam divorce am seen diggante divorce boobu woo nañ kilifa yi kilifa yi ñëw ñu divorce ko mais ci yoon divorce wut. waaye boobu day fekk nga am certificat de mariage. waaw mais ki nga xam ne sëy bi nga xam ne amul certificat de mariage bi ñuy marié wu. te mhm. jàkka ja la ñu dem. teg imaam teg ay kilifa ñu mayee ko bi ñu demee ba problème am. Mhm. amuñu woon certificat euh, de mariage. léegi bu ñu demee ba divorce am. problème commencé na. kii ne am naa ak ak moom ay doom. Mhm. du wàcc noonu. du ma fase noonu may dem noonu. ci zéro bàyyi ko. waaw alal ji nga xam ne. moom am na ko. Mhm. keene moom tamit intérêt bi. waaw keene moom tamit ndax gis nañ ko ba tàyyi góor goo xam ne danaan du la fase ndax dama ko bëgg ba tey. Mhm. fekk jigéen ja moom bëggatul ku jigéen nga bëgg ñu fase ko moom mooy dem tribunal. ne dama ko ne fase ma mu bañ ne du ma fase. léegi loolu noonu day indi beneen ranking boo xam ne. du jeex problème bu rëy rëy. problème boo xam du jeex loolu foofu tam lu jar a bàyyi xel muy mariage boo xam ne amoon na certificat de mariage wala amu ko. ñu ñu divorcé. waaw yi moom moo ñu yàq foofu mais bu dee suñu diine moom la fi mag ñi bàyyi woon yooyu bare bare dawuñu ko. non loolu ñun moom xamuñu woon loolu. ñun moom xamuñu woon loolu jàkka ja lañ xam ak mag ñi toog. mais léegi nag jàkka yi nañ am nañ kii euh, kiiwu jàkka kayitu jàkka. kayitu jàkka mais loolu dañuy bind rek date yooyu. baax na loolu pour bu ëllëgee bu bëggee xam sa date de mariage nga dem xam ko am na sax jàkk yoo xam ne gën nañoo évoluer dañ koy yóbbu sax anniversaire léegi waaw dañ koy anniversaire <laughs> dañ koy fête lu am solo mais nag <laughs> mais nag war nañoo gën a bàyyi xel bu baax baax ci divorce yi nga xam ne ñu ngi koy def parce que nit jigéen mën ngaa séq ak moom sëy ak moom euh, ba sëy bi jeex waaw dara mën naa bañ ñaaw léegi nag lu problème mooy yow bu fekkee ba ngeen ba ngeen di divorcé demoo ca mari demoo ca tribunal ba ne mari maanaam divorcé nañ tubaab bi moom day jàpp ne ba léegi mi ngi marié mi ngi ci sa buum mu dem ëllëg dem sëyi ak keneen yow nga bëgg koo sonal wala nga bëgg koo chantage comme moom di loon tribunal déclaré ne ma euh, divorcé na ak diw sàngam sama soxna si yow moom jëkkër ji mën na la ci indil problème. waaw day dem tribunal ne ah moom kat day njaaloo ndax. amaan na beneen jëkkër bu bokkut ak man. wa non même même bu fekkee certificat de mariage bu amee certificat de mariage ci début bi parce que tribunal enregistré na ko moom. mais bu fekkee enregistré wu ko doom dañuy moom moom euh, da koy da kilifa yi ñooy taxaw. ba pare loolu boo ko seetloo tamit lu bari suñu doom yi duñu leen jël jàngal leen suñu diine ji euh, yóbbu leen ca daara ji da jël xale dugal sardin mu pare nga dugal école nga xam ne euh, suñu mujj jamono yaakaar naa dana am ñu baree bari ñoo xam ne dañ koy waxtaan ne dañ ci jaaxle ndax maanaam diine ji lañ xaw a sàggane mu danga nga am sa doom dugal ko daara mu wàcc alxuraan toppaat loolu ñu naan beq def lépp bind kaamil loolu amatul ñi ngi topp nasaraan bi rek ndax loolu tamit du indi ay jafe-jafe léegi soxna si ngay wut da koy waajal parce que doom ji faaw nga préparel ko yaayam mm-hmm. yaay ji faaw nga prép dafa am benn waay joo xam am doom bi doom ji matee dal jàng juróom-ñaar mu dem yóbbu ko ci sëñ daara bi sëñ daara bi ne ko kii weesu na jàng ko weesu ak yar mu demaat ba amaat beneen doom bi mu feree rek mu indi ko mu ne ko kii itam weesu na bi mu amee doom ñu ngénte ko ba ci ëllëg sa mu ñëw indi ko mu ne ko ba léegi kii ngay indi dafa weesu mu ne ko ah dimbali ma kon sëñ bi nan laay def mu ne ko ba nga koy tànnal yaay ji foofu nga war a tàmbale ca ba nga koy wutal yaay da koy wutal yaay ju dafa am benn euh, waa joo xamante ne dañ koy nettali ci euh, jamono yooyu Omar ibn Abdal Omar ibn Xattaab la woon waajur bi dafa ñëw ci Omar di ko jàmbal ne ko sama doom de daf ma dul defal dara daf may sàggane Omar woolu doom ji ba mu ñëw mu ne ko sa bàyyi lii mu wax loo ci xam mu ne ko bàyyi Omar ndax mën na maa xam àqi bàyyi ci doomam mu ne ko waaw àqi bàyyi ci doomam ni yomb na ñett rek la na ko wutal yaay ju baax na ko jàngal alxuraan na ko wutal tur bu baax mu ne ko sama baay bi nag yooyu def ma ci dara wutalu ma yaay ju baax ndax ca jaam yi gën a yées ya la dem fa jigéen ñëw indi ma mooy sama yaay wutalu ma tur bu baax ndax euh, gunóor yooyu nga xam ne ñooy bërëng euh, dem àll yi moom la ma moom la ma tuddee ba ca des mooy ak lii fanaanu ci sama bopp bi ma kon kii amul benn àq bu mu bu mu bu war mu def. ndeysaan loolu doy na waar. bàyyi ja nag ne dal ci kaw bàyyi ji Omar dal ci kaw bàyyi ji ne ko ah yow kat yaa deful li la war sa doom ji kon donc xale bi balaa jardin bi nañ ko wutal yaay ju baax yaay ju baax yaay mooy dañuy wax ne al ummu madrasa yaay mooy école bi école bi njëkk ci ci xale parce que lu bëree bëri ci ci ci ci yaay ji daf koy roy ci moom ba ci ween wi muy nàmp da am na lu muy jël ci moom am na lu muy lu muy lu kii ci moom naan naan ween xam ko taaskat bi di waxee la la ku nekk la nga nàmp ngay. moom ngay doxante ko ah. mel ni Abdoulaye Xat li wolof Njaay naan rek. li rëb ci nag bi lépp xam ne li ci bi cin li ah. émission bi xam naa dañuy ñaaxante rek parce que émission bi daanaka jeex na. Ah. benn baat dafa ndikk sama xel sànq. muy hmm. Idda. Idda. Idda hmm. waaw Idda. est-ce que Idda ñu ñu ñu gàttal ndax temps bi ñu ngi signalé ne jeex na. mais Idda. Idda moom jar bëgg naa ñu nga leerañ ci tuuti loo xam ne. waaw war nañ koo déglu bu baax a baax xam nga Idda dafa am ñaari façon Idda. am na Idda ki ku ñu fase am na idda itam ku borom këram faatu ku borom këram faatu am nga ñeenti weer ak fukki fan yoo xam ne da ngay iddawu iddawu nag mooy da ngay ñaawlu rek mën ngaa génn ci marché bi mën ngaa dem fu la neex mais nag wut nga ñaawlu nga gàtt tànk euh, ci ñaanal sa kii nga faaw xaay bàyyi yu bari bu dee idda yi koo xam ne dañ koo fase nag am na maanaam ñetti set lañ wax bu toogee ñetti set yoo xamante nii euh, gis na règle ba muy doon ñetti yoon ba mu set wecci kooku bu fekkee gis na ëllëg borom kër ba neexee mu dem sëyi am na idday koo xam ne rek dafa ëmboon ba am doom kooku moom saa bu amee doom rek iddaam jeex na daal na jeex set na wecc parce que set na kon xam naa rek simple la xam dañuy gën a ñaaxaat rek suñu mbokk jigéen ñi nga ñaaxaat leen rek ñu gën a góorgóorlu ci sëy te góor ñi daal di yërëm jigéen ñi góor ñi itam gën a yërëm jigéen ñi ngeen gën a tàggoo ndax émission bi daanaka jëm waaw jërëjëf ñu ngi leen sant bu baax xanaa di gën a soññiwaat rek ñu jiital euh, jaamu yàlla ci sëy yi bañ a jiital intérêt parce que intérêt moom début bi mën naa neex lool mais du am ak mujj sëy yu bëri yu am ay jafe-jafe parce que intérêt lañ jiital intérêt lañ njëkke kon nañu gën a góorgóorluwaat bu baax gën a jigéen tam am na droit ci tànn borom këram tànn bu baax a baax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax lu am solo iza ataakum man man wax diinahu wa xuluqahu fa zawiju su leen góor dikkalee ngeen xool natt jii diineem mu mat ngeen natt euh, ngoram mu mat na ngeen ko may seen doom waaw sañse rek moom doy na waar en tout ngi ñi ngi émission bi jotaay bi soxna Kumbaloo Gaydel ñi ngi leen sant bu baax ci yii wax am na solo war nañ ko gën a yaatal dañ koy yaatal incha allah boobu tamit dañ ñëwaat faram-fàcce ko ak muraay yi nga xam ne ñi ngi koy def dellu ci biir néeg mm-hmm. nga xam ne soxna Satou itam vraiment ñi ngi lay sant bu baax di la jaajëfal bu baax di ñaan émission bi comme dafa mel ne bii mooy première numéro bi yàlla na dema dem ba nekk ci télévision yi ñu leen di seetaan partout incha allah ñi ngi sant di gërëm mbokki téléspectateurs yi. Serigne soxna Satou macha allah émission bi. Euh, Euh, mel na ne rek euh, wàcc jëm na ci jeex ndax li <laughs> gàtt na waaye nag luf ci nag bi lépp xañ na wër ci biir cin li waaye meen mag def ne lu suurus gor lu nekk rek xañ na ci biir cin li kon xam naa dañ nay jox rek nga daal tàggatoo tamit daal di am baat yoo xam ne tamit nga yeddu ko suñu mbokki jigéen ñi rek na xel du doy waaw soxna Kumba ñoo ngi nuyu di ziyaaraat bu baax a baax ñëpp di amaat contentement ci téléspectateur Rafah TV yëpp di leen ñaax di ñaax suñu bopp di ñaax suñu moroomu jigéen yi tamit bu baax a baax ñu xam ne sëy du tendance du taar borom kër sang la dañ koy jaamu sëy jaamu yàlla la suñu borom moo ñu ko digal nekkul loo xam ne danga naan sama moroom def na ko naa ko def wala nekkul loo xam ne tamit danga naan nii laa ko mënee nii laa koy defee kon nañuy ñaaxaat suñu bopp bu baax a baax rek ñu xam ne sëy moom jàmm yàlla la bu baax a baax di delloo nuyoo ko ziar bu baax ñi nga xam ne ñooy téléspectateurs yi di sant ak gërëm ñëpp di gërëm Cheikhul Khadim waaw ndax li nga wax rek am kilifa mooy mooy li am solo lépp rek kilifa la ndax boo ko amee am nga solo boo ko amut am na solo kon nag macha allah émission bi jeex na sant jaajëfal képp koo xam ne rek yaa ngi di doon seetaan waaye itam di jaajëfal képp koo xam nii yaa ngi ñuy seetaan foo mën a nekk tamit ci àddina bërngal këpp rek ñu ngi lay kontaane bu baax a baax la réalité nag thème bu nekk rek mooy ñëw fii ci table bi ñu waxtaane ko di woo tamit suñu mbokk commerçant yi ak commerçante yi mën ngeen a gaaw sponsoriser émission bi ci numéro bii di eh, daw ci suuf nag mooy service commercial bi kon mbokk yi xam naa rek ñu jaajëfal sant gërëm daal di leen di jox rendez-vous rek eh, ci beneen numéro ci beneen thème jërë ngeen jëf fii amaanillah والقلم وما يسطرون mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kuréelu yaatal mbindum alxuraan bu c 3 taxawu jongante bi ñuy amal jëm ci mbindum alxuraan moo yëgal ñépp rawatina ndongo daara yi ne gannaaw diir bu yàgg bi ñu ajandi woon bépp activité jëm ci amal boobule concours di édition 2020 2021 mu ngi xamal candidat yi jotoon na déposé ne dooraat nañu liggéey bi C3S mi ngi xamle ne ngir wéyal liggéey boobule liste candidat yi jotoon na déposé daaw rek la ñuy njëkk bi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2021 ngir jël ci ñoom ñeent fukk yi war a jàll ci xaaj bu njëkk bi ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 bi ni'mati rabbika bi majnun ndigal jëfe tapis rouge doon seen di liggéey ngir seen mbégte ci grand màggal Touba bi tapis rouge dafatina mëninam indi leen spécial promotion addiya ci ay salon Louis XIV à 799 000 salon royal rafet am qualité tapis rouge yéen la fi nekkal xoolal yi les salon ci cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille te si bii promo soo jëndee salon sept places tapis rouge may la quatre coussins moquette ak table basse tapis rouge a sillonné le monde pour essayer de satisfaire sa clientèle avec sa nouvelle collection de meubles turcs des chambres à coucher de six battants à six cent cinquante mille ci ay design yu raffiné tapis rouge promo table à manger six places de provenance turque à cent quatre vingt dix neuf mille tapis rouge am na ay salon cinq places ci trois cinquante mille waa lii moom neexul promotion spéciale Magalu Touba à tapis rouge.